yee salaamaaleykum salaamaaleykum sénégalais yi gannaaw bi tabaski bi maa ngi nuyu sénégalais yëpp di wax benn affaire ni mention spéciale pour monsieur le président Macky Sall mais Sénégal foo ñu waxante dëgg ñoo fi nekkoon di xeex di taal ay pono di daj ay magasin ni ngi di dee ndax Macky Sall du dem troisième mandat waaw mais c'est la première fois nga dégg xool président Afrique bu taxaw ni moom du def troisième mandat kon yeewi na askan bi mention spéciale mention pour monsieur le président Macky Sall léegi nag yéen opposants yi fi nekk di lekkante mel na ay vampire ngeen nekk nit président buy faru tamit ku mën a doon na nga xam ne di nga daj lu mburu du daj ci taal ngeen bàyyi si xel respect à tous les Sénégalais Wagwan.